salaamaaleykum sëriñ Moustapha Diakhaté maa ngi lay nuyu yow yaay jiite ñi nga xam ne ñoom ñoo amee feebaru roño fii ci Touba association bi ñu gis ne am na fanweeri million yoo xamante ni xalifa général des Mourides joxoon na leen ko ngir jàppale leen ko ci liggéey bi nga xam ne moom ngeen door ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ci bërëb bi nga xam ne fañ la ñuy def ñi nga xam ne ñoom lañ fay faj ñu buggoon a xam ndax 30 euh, millions yooyu mu leen joxoon. ca 2018 moom moom mooy law ba fi mu toll nii nit ñi di ko wax wala dafa am yeneen 30 millions yu yees yoo xam ne joxaat nañ leen ko. Ah, waaleykum salaam sëñ Fallou Sylla maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax man la Moustapha Diakhaté di nuyu waa euh, ñi nga bokkal liggéey yëpp di leen ziar. Euh, di kontaan ci question bi ma laaj parce que euh, xibaar bi man jot naa ko waaye dafa am nit ñoo xam ne dañ dul topp information ba jeex ndax situation liggéey bi bi ñuy leeral fu mu toll dañoo wax fam tàmbalee ba fam yem fam tàmbalee nag ba fam yem mooy sëriñ bi ci boppam moo ci njëkk a joxe trent millions defe naa yéen booba ñëwoon ngeen réceptionné ko liggéey bi bi ñu demee ba nga xam ne liñ yoroon mi ngi jeex benn mbokku taalibe dafa ñëw daal di wax ne nañ ko may mu def ci dooleem ba fi mu mën a yem moom mooy saytul boppam liggéey booba ñu toll ci war a def finition boo xam ne mooy étape bu njëkk ba mu waxoon muy defar karo yi monter yenn machine trente cinq machines yi euh, peinture ko karo ko monter climatiseur yi euh, ñu mën koo jébal askan wi ci loolu nag lañ doon leeral liggéey bi fi mu tàmbalee ba fa yam waaye dara lu bees euh, soppeeku ci ndax kii liggéey mi ngi liggéey liggéeykat yi liñ leen war a jox ñi ngi leen ko doon jox ñi ngi xaar ñu àggale état bu njëkk bi ba jébbal ko xalif bi mu jébbal ko état bu ko jébbalee état nag ñun ñoo doon sàkku ci état mu fexe ba personnel bu doy biñ soxla te loolu ci loxoom la nekk mu jàppale ñu ci ngir coono biñ ci daj ñun mu bañ a niil loolu rek lañ ci lañ ci jublu woon waaye du ni sëñ bi dafa joxe waat xaalis lam joxe woon mooy loola changement amagu ci ndax bu ci changement amoon yaakaar naa kenn du leen ko njëkk a yegg. Serigne xam naa ne buñ euh, laaj bu mujj rek euh, moom mooy euh, ndax mën nañ xam date bi mu leen ko joxoon ban at la woon. waa kilifa gi ñun ñi ngi tegoon xeer wi le treize mais deux mille dix huit euh, biñ tegee xeer wi euh, ci moment yooyu moom la ñu jox li nga xam ne moom lañ doon tàmbale ndax bi ñuy teg xeer wi booba euh, sëñ Matar Jaxate moo ñu joxoon cinq tonnes ciment yoo xam ne moom lañ moole woon tàmbalee ko la ca yokk mooy trente tonnes ciment yi nga xam ne sëñ Abdou samat joxe woon na ko léegi nag sëriñ bi moo ci dugal loxoom. biñ liggéeyee ba nga xam ne nag fondation bi génn na ba liggéey boobu war a toll ci jeex euh, léegi nag ci la gis mbokku taalibe boo xam ne moom sax daa sàkkoon ci man ne ma bul wax sama tur waaye ànd na ma moom ba ca xalif ba ma wax ko li mu wax ak li nga xam ne mooy mébétam sëriñ bi nangul ko ko mu ñëw ànd ak man liggéey booba ba jamono yi ñu toll tembe nii ñu ngi ci finition yi euh, léegi nag euh, date exacte bi nga xam ne moom la ma ko joxoon moom fàtte naa ko waaye mi ngi ñu ko joxoon ci teewaayu préfet ak euh, directeur Amadou Gaye Diouf euh, mu teg ko sama loxo waaye boobu ci 2018 la woon ndax loola moom lañ yoroon pour tàmbalee liggéey bi euh, bañ ko tàmbalee ak léegi nag dara ump ko ci ñi ngi ànd ak moom di ko topp waaye nag wax dëgg yàlla ab jox-jox bu bees moom yëgaguma ko ci ndax maa ngi moom bërki démb rek yaakaar naa waxtaan na ma ak doomam mu sëñ ko so lu baree bari ci liggéey bi te yaakaar naa bu ci loolu amoon démb fi dox yaakaar naa ñun ñaar du mën a ump baax na jërë def